croix rouge moom li ñu ci mën a wax mooy yàgg nañu lool ak service d'hygiène vraiment yàgg nañuy liggéey ak ñoom à chaque fois que moom ay événement yu ni mel croix rouge dafa wax sa nekk ci wetu service di d'hygiène ñu ànd ci liggéey boobu vraiment duñ def lu dul di leen encourager di leen féliciter également ci ci ci relation bu seen boobu nga xam ne am nañ ko. su amee service d'hygiène soxla nu daf nuy woo ñëw soxla googu mu woo nag daf nu woo ñu ñëw jàppale ko ci liggéey bi mu formé nu formé suñu éléments yi ci liggéey bi mu nga xam ne dañ koy jàppale ci cet mi ak cetal béréb bi seetal fi malade yi tëdd seetal kër yi seetal vraiment environnement poste bi d'hygiène daanaka euh, dafa nekk en sous-effectif ce qui que donc am na yu bëri yoo xam ni vraiment seen appi bu ñëwee daf ñu ciy dimbali lu bëri bëri bëri donc ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax ñu nekk ay jeunes yu dévoués yu mën seen liggéey vraiment yu xam lan mooy seen ay objectif ci terrain bi et à chaque fois bu ñu àndeek ñoom ci terrain bi mos ñu ci am benn gàcce.